Eh, julli ci yonte bi salallahu taala alayhi wa sallam eh, sant serigne touba khadim rasul ñoo ngi nuyu jullit jep di len ñaanal jammi suñu borom ak njégalam ak yërmandem ñu amoon ay tombu wala bok ay hikma yo xamne dañ ko defoon fas yéene ci fatelente jammi fatelente yow fasiyene ci fasiyene ci fatelente ak jammi doomu adama mën naa fàtte ki bind dee waaye du fàtte mukk dee doomu aadama mën naa fàtte ni mu juddoo waaye du fàtte mukk ni muy deewee doomu adama mën naa xam li ko war wante néewaana muy def li ko war yow doomu aadama àdduna day ñaari bis rekk la bisub mbégte ak bisub naqar rek waaye sa bisu mbégte bul bég mukk ba fàttee bégloo sa boroom waaye sa bisu naqar bul topp sa naqar mukk bay def lu naqari sa boroom yow doomu aadama loo mën a jur ci dee rek lay mujj loo man di am ci jeex rek lay mujj loo man di sol ci ràpp rek lay mujj loo barile barile ci mbébét rek ngay mujj doomu aadama bariwaana mu ñàkk topp boroomam amaana bu amee topp moroomam fàtte boroomam te nit ku ne war naa rus topp bëgg-bëggi moroomam fàtte bëgg-bëggi boroomam doomu aadama buy ñëw ci àddina day jooy nit ñi di ree kon fexeel ba booy génn àddina bu nit ñi di jooy yow ngay ree li gën a bon nag mooy di ñëw ci àddina di jooy di génn àddina di jooy ndax la nga fa war a fekk doomu Adama lekkal lu la neex waaye yow moom sax yee lay lekk tëddal fu la neex waaye dinga nga tëdd ci bàmmeel waxal lu la neex waaye di ko waxaat ci bàmmeel dajale ku la neex waaye di nga sa boroom yow doomu Adama boo daggee sa xaritoo ak nit rikkwaay daggaaleel saw làmmiñ ci moom yow doomu aadama na nga nëbbu nit ñi li lay jooyloo ndax am na nit yoo xam ne saa bu ñu xamee li lay jooyloo bis bu set nga jooy te ki lay yëkkati saa yoo daanoo moo gën fuuf ki lay reetaan boo daanoo yow doomu aadama yaatu ba yaatu jeex yaatal sa njaboot moo ci gën nay ba nay jeex nay ci xam-xam moo ci yées xam ba xam jeex xam yàlla moo ci gën am ba am jeex am yàlla ak say mbokk moo ci gën ñàkk ba ñàkk jeex ñàkk yar moo ci yées réer ba réer jeex réere sa diine moo ci yées jub ba jub jeex jublu yàlla moo ci gën perte ba perte jeex perte sa temps moo ca yées liggéey ba liggéey jeex liggéey nit moo ca bon doon seex neex na lool waaye seexlu bon moo ko gën mat ba mat jeex matal kóllëre moo ci gën siiw ba siiw jeex siiw ci bon moo ci yées rafet ba rafet jeex rafet jikku moo ci gën wax ba wax jeex wax dëgg moo ci gën noppi ba noppi jeex noppi ci loo xamul moo ci gën dinaay faral di wax ne ab sëriñ ñaar la sëriñ buy gindee ak buy góndee yaay choisir bi nga ci war a àndal boo toppee sëriñ buy gindee mu gondi mu gindi la boo toppee sëriñ buy gondee mu gondi la ëllëg yowmal xiyaam ngeen gindee ko ca sawara boo toppee sëriñ buy gindee mu gindi la ci yàlla ëllëg yowmal xiyaam ngeen ko ca aljina boo toppee sëriñ buy gondee mu gondi la ëllëg yowmal xiyaam ngeen gindee ko ca sawara Euh, yow doomu adama ndox boo fekkewul ba muy taa bul ca xuus mbirit boo fekkewul ba muy sosu bul ca wax yow doomu aadama xamal ne xorom ak suukar ñoo nuroo bay benn waaye seeni caf ko bokkul ay nit mën nañoo nuroo mën nañoo nuroo ay jëmm nuroo bay benn waaye seeni jikko wuute lool yow doomu aadama say secret bul ko wax mukk sa xarit bu bees ndax trahison du wees yow doomu aadama xamal ne ñetti dëkkandoo nga am ñaari malaaka yiy bind say jëf saytaane bi yàq say jëf ak dëkkandoo yi ngay jëflanteel malaaka yi fexeel buñ la bindal lu lay rusloo yowmal xiyaam seytaane bi fexeel bum la jëfloo looy rëccu yowmal xiyaam dëkkandoo yi fexeel ba rafetal sa jëflante ak ñoom yow doomu adama nanga oyof comme mbaxana toroxlu comme dàll am yërmande comme yaay tabe comme géej nanga nga muñ kon nga muuñ na nga dal boo bëggee di dalalaate na nga yaru kon nga yor na nga noppi boo bëggul juum del sant boo bëggee dolliku del moytu boo bëggul moy na nga comme suuf kon nga yëkkati ko comme asamaan yow doomu aadama ndono ki la jur melo ki la yar roy ki la neex ànd ànd ak sa nawle xam nag xam li lay jariñ topp toppal ki lay digal paa ki lay dugal yow doomu aadama bul def fukk avant fukk bul def dix avant dix bu lekk te xiifoo bul nelaw te gëmmentuwoo bul wax li feeg laajeefu la bul noppalu boo sonnul bul laaj avant ñu lay jox bul jullite waxtu woo jotul bul dem fuñ la woowul bul wax lu la leerul bul dugg ci loo xamul bul def loo mënul yow doomu aadama bu la àddina nax gasal leen seeni way dee ay pax te waajal nag seeni pax ku nekk ak say pexe waaye ku nekk ak sa pax lima may wax du ay nax du ay tiax bu len ko sul ay nax dinañu la suul ci pax mu fess del ak ay sax tang jeer di bax yàlla fekk ngay ku bax kon jëfal te wax yow doomu adama yaangi ngi jël ay liggéey di gas di sul fàtte nag bis bañu lay gas di suul yow doomu adama del julli bala ñu lay jullee del sangu farata balaa ñu lay sang boo faatoo dell saraxe balaa ñu lay saraxal del suufe balaa ñu lay dugal ci suuf del laajte balaa ñu lay laaj ci bàmmeel wonal nit ñi ginnaaw jublu yàlla balaa ñu lay won ginnaaw bu la suulee yow doomu aadama sa dund gi jeexal ko ci lu la neex waaye yow moom sax yi lay jeexal temps boo def ci kaw suuf dinga def temps bu ko raw ci biir suuf yow doomu aadama rayal ku la neex waaye yow bisa ngi ñëw bopp def na la rey yow doomu aadama suuf du lekk mukk jëmm lekkaale jëf kon rekk waaye na jëf sell yow doomu aadama buntu njéggal caabeem mooy tuub buntu ay caabeem mooy jàmm buntu am-am caabeem mooy doylu buntu xam-xam caabeem mooy toroxlu waaye buntu kawe caabeem mooy suufe buntu teki caabeem mooy jom waaye buntu noon caabeem mooy teranga buntu xebel caabeem mooy fen buntu respect caabeem mooy xam sa bop fi may teje nak mooy kep ku bëgg njub mbaa ku bëgg dundu na nga yore turi quartier yi nek ci suñu rek bi ngor nit war nga am ngor waaye boo amé ngor te gore wo do am sens kon da ngay dem gor dekk gore na nga am gor waye bo amé gor te gore wo da ngay goree di liberté 6 liberté bu upp baaxut ci ab julit waye bul 6 mer mus bul mer waye na nga muus ba kenn dula mëna nax sacré cœur say secret cœur ak say secret cœur pour ko génne mukk ci mbéddi mi nit ñi di ko xam dali for na nga nek nit ku dal waye bul jaay kenn for cité faja nga cité li ngay lek da ngay faju cité bat fal, nga cité ñi ngay labat yarax yéen jigen ñi ak yen góor ñi ngeen di moyto sol yarax cité damel nga cité li ngay lek ta baña damu kenn kay dugu nak tudul kay dugg kay dugg la tudd te nit ku ne war nga fexé ba li ngay loy lu ne nga xam ko jurbel nga fexe ba lo jur mu bel facebook tudul facebook fe fees fees bokku la tudu da ngay fees ba pare soog bokk la ngay fees nak ak ca ngay bokk war nga ko xol bu baax li ma la wax yépp nak bu amé nga dem ci xaar yàlla tok fa xaar fa yàlla mu fekk la fa والسلام على من اتبع الهدى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته